Thank you nga ne lii na trop weeru koor gi nga may bës loo nii lii moom wax dëgg yàlla moom yàlla santaane karna. lii dara newu ci xanaa man du ma sa jëkkër nag xam nga nekk sama jëkkër moo tax lu ma def bañ tegg sa yox may def lii wax ji de bëgg ah ngay koor nga may bës loo tamit lii xam nga ko dara yow defal li nga daan def yow xanaa naa xëy ñàkk si koor gi damaa jàpp de mbag yi fii yi mën la defal yi noonu yi war ngay bës wax na xaratu dara nag yekkul de daal foog mu dafa ñaareel waaw kooku. onze billaay mën seytaane rek. lii de waaye nag toppee ngeen ñu moo rafet ngeen ñu xanaa bu leen rusul kii ci kaw ngeen rusu ñun ñuy jaamu yàlla yi bu leen def lu bon bu bëccëgu weeru koor nga def ko seen biir nekk. xam naa bind livre bi ngeen di bind livre léegi doyatu nee ngeen yoo yaay da ngeen a génn si biti di ko bindee si biti waaye yàlla rëbb na leen ngeen di mel ni ñaari nag yu ñuul. <laughs> eh eh gis nga maman ba ma waxaatee nag bu ñuul ma dëgg def la lu métti ba sàmba di ca dee ma yow da dof wala yow man nga yow gis nga yow nag li mu la may mu ngi bëgg mu ngi bëgg a mu ngi bëgg a ëpp. yow xam nga la yow yaa war a xas sa lex yooyu mel ni ñoo caay da yaa war a xas te na sa benn loxo Ya, amo sa bopp mané engagé nga ma yow mom amoon lu may wax ak yow ngay melni nagu foora bank sa baram ba ma wax ak yow ñaar ba ñett yoo xamante ne danga koo a dégg sa nopp bi bëccëgu weeru ko weeru ko dang koy sutura yalla da ka ormaal waaw yow dang ka war a xam nga né maraka yërmande yi rebb nañ la yow bind livre boy bind kay bindal ci bi waye ngay bind ba ci fi di bësal yow da nga ñak fay waaye yow merci ndax lëppaalab ci fleur lay jógee ginnaaw yow ngay may leen ma sama may leen ma sama jàmm dafa maa koy joxe yàlla ma koy joxe waaye yow yaa ngi nii am jalo la yaru rab la yor sa jëkkër nii dañ la ko sarax sa jabar dajal boo ma ko waxatee ba def lu bon kan moo ma sarax sama jëkkër foo ko fekkee jeex na waa léegi jeex na toog maman yow sonal boo moytuwul ci kër gi yow boo moytuwul ci kër gi dinaa la fi def lu bon seet naa seet ba sonn set na yow eh, sa wax ju bari ji heure bi lan moo ko waral bon weesu wut li eh, ma jóge sama ne jabar ñu génnee seen biir ne yoo yaay tëdd fii lal seen basan nee nañ dañuy kee jox morom ba kii bu bësee kee jox morom ba. gauche ak droite sama gel bësuma de sama jabar may bës. dafa ñaaw iya, si gisin. ok. may wax ñu ne ma da ngaa ñàkk fayda. doom yaay nag neexul ba neexul mais maman wax na la dëgg de. kii waxul benn dëgg si wax na la dëgg yooyu. nooy nekk ak sa jabar fii ci ëtt eh, bi yéen ñaar kese nga tëdd muy bës sa fala gauche. waaw mais sama jabar yéen iya, nag lu ngeen bëgg sama jabar moo may bës. wóoru ci mën nga cee yëg sa bopp te boo yëgee ya, sa bopp dootoo set. ah loolu leer na te yëgul ya dara te set ci ngëm yàlla la bokk wax lu la wóor tamit wax lu la wóor tamit ci ngëm yàlla la bokk dama ne nasaafatu minal iman la yàlla wax set ci ngëm yàlla la bokk te boo setulee nooy woore noonoo xamee ni loolu wóorul yow mooy sama jaam wóor tëddee ni sa jabar di bés fu ne mën ngaa yëg sa bopp waaye puissance neexul ba neexul waaye tey li maman mi wax dafay dëgg pire ndax maman moom dëgg pire rek la la fi wax tey neexul ba ah, neexul waaye sa jëkkër ji même bu fekkoon ne moom moo nangu lool yow danga koo waroon a bañ ndax yow yaay jigéen. yow dëgg la kay yow yaa war a wax li may def ak lu ma warul def yor nga sa bu ne weng te lijjanti woo ko sama jëkkër la su ma neexee bés ko ba suba. gaarus rek waaw loolu sa yoon nekk ci. xajaa yow fekke naa fi fekk ku digle sangu day fekk nga fii ku ma xut ku ne yaa ngi siim mm-hmm. booy dig li muy def ci néegam bi moo gën a pur eh, waaye eh, man déggoo jéeg maa man ndax la ma def naa ko ci sutura sama biir eh. néeg bi ak sama jëkkër waaye génnuma ci bedd bi di weer sama wala ko daf waaw nee naa la man jéegoo jéeg maa man wax ku nekk taxaw fi naan ay lu mu wax na ay waay ay awa baa la bëgg ay awa baa la bëgg ah loolu sama ma déglu ma ah. déglu ma rek boo leen daanalee ma def boo leen daanalee ma def yow ñàkk fayda weesuwul ngay reetaan bay daaji daaji sa taal xam nga ne yàlla bindal na la baakaar yow moom amal lu ma wax ak yow comme que yow da nga sa ñaari jee tiiñal la fi yow noppi ngay mel ni oustaz bu rafet yow moom jërëjëf rek yeeta yow moom ñàkk jom weesuwul nga toog fii yow moom lañ la rëbbee ëpp na bandi bi wëyu bi nga doon ngay defar sa kanam gu ñëw yow amoo koo toppatoo da ngaa lamb tey waxul benn dëgg. wax na la benn dëgg. neexul ba neexul nag wax dëgg yàlla na bu sikki yàlla mais dëgg biir nag xam nga ne weeru li yëpp waxoon naa moo ma force. yow it nga naan ko euh, euh, ku bëgg fu mu fanaan ku bëgg ko wéetal kay tëjal buntu bi du leen boole. sama sëñ Fara moo wax dëgg yàlla nag yow nag wax dëgg yàlla nag war ngaa naan ndox te wari. lii dara man woor naa mais war ngaa wari. waxuma la moom mooy wari loo de kon ma xam ni kon ñun. sàmm ji la war